été ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed ngeen jëf dialogue national bi ñu doon def ci réew mi la ci tukkee soleil national nee nañu tënk nañu ko ba jox ko président national ñaari téeméeri recommandation ak juróom-ñaar fukk ñoo ca nekk keroog samedi ci lañ gonte am daje ci palais de la république président de la république rafetlu fa liggéey bi nga xam ne juróom-ñetti commission yi def nañu ko ci dialogue ñu càmbar ko ci daar daar bi mi ngi tegee ci taabali njiit réew mi mi ngi ñuy xamalit ne moom Macky Sall jamono ji moo yore cëgal guyam gouvernement bi am na benn semaine ngir déposer texte ba ci assemblée nationale ci procédure d'urgence am nañu fukki accord ak ñaar ci wàllu politique bi ak ñeenti désaccord l'observateur xëy jël conclusion yi tukkee ci dialogue national bi teg ci xëtamu njëkk di ñu ko càmbaral biir ak biti ba jot cee def ay contre expertise mu di modification yi war am ci code électoral bi xalaatub service militaire obligatoire bi ñuy waxtaane ci waxtaana ba tënk ko dugal ko conclusion yi jébbal njiit réew ana lu ciy ngëneel li ak lan moo ciy ñuul coowal troisième mandat bu Macky Sall bi l'observateur ne nañu président nee na tabaskee bu nuppi dina wax li mu ci nar le quotidien gis ne Macky am na lu mu nar am na lu muy rumandaat nee na bu ñu tabaskee ba pare dina wax ci candidature bi ñuy lam-laame ak di ko jaabaajonge ci réew mi te dogal bu mu ca jël da koy assumer lu jëm ci bokk Karim Wade Khalifa Ababacar journal nee nañu boromam di Macky Sall da koy wéyal ba ñu tabaski ba pare la nañu dialogue national ba jeex na ñi doon xaar ci njiit réew mi mu wax lu leer ci ndax dafay sampum dëndëm ci élection présidentielle yi 2024 yi am déet ñooñee nañu tari sóoratul muñ wanaa ko toog xaar ndax moom day mbili ji di Macky Sall nee na bala ciy wax dara day fekk ñu tabaski ba pare pare en attendant moom président Macky Sall journal las nee nañu fabu na wutali makatal mu karam dem na aji ji journal tribune nañu jëlli bi jarta guddal Macky Sall dafay déclarer candidature am ngir wu troisième mandat fi mu sukkandiku joggi fa ba tax mu gëm ne Macky Sall day sampum dëndam ci élection présidentielle yi di ñëw moom journal tribune mi ngi ñu koy leeralal ci page am yeneen yu mu wax keroog ca ndaje moom moom njiit réew mi réew mi quotidien nee nañu mooy événement yi xewoon ci réew mi ci ndoxtal weer wi président de la république nee na li ñu gis ci manifestation yi du dara te kenn du ko bàyyi muy jàlle noonu dinañu ci def li ñi waroon a dem yeewi ji Ousmane Sonko far nañu ko gën a yeew sursoi nañu waay yeewi askan wi woowoon askan wi démb ci dimanche ji fële ca cité kër góor gi ngir ñu dem tëbal blocus ba ñu def Ousmane Sonko dajji barrières yi génne Ousmane Sonko biir këram opération bi dafa mujj laji dem nañu cité kër góor gi waaye takk ndeeru Ousmane Sonko sax gisuñu ko muy Cheikh Tidiane Dieye di Déthié Fall di Moustapha Guirassy di Maïmouna Bousso Cheikh Tidiane Dieye ak ñoom docteur Cheikh Dieng sursoi sax ñu wax ak ñoom daanaka dañ ne cëpp ne jalañ cité kër góor gi tànk l'observateur nañu yëf yi deful dara lu dul lajj li waay yeewi askan yi woote woon mu di opération yeewi Ousmane Sonko askan wi ñu ci woowoon ñoo lànk lañ leen ci tegal leader ya fa tegoon seeni tànk ay grenade lacrymogène moo leen fa jëlee am na it ay député ñu fa teg loxo militant yi ñu doon woo ngir ñu ñëw jàppale leen ñu dem yeewi ji Ousmane Sonko militant yi wan nañ leen démb na ñoom dem ci daral yi yeewi fa xar mu ñu yeewal seenu njaboot la ñu gën a tal tukkiteel àdduna ca kër Mbay Fall ubbi libération Malang Sané ab auxiliaire de police la boo xam ne jamono ji ma nga ñu tëyee ca police jarbaatam mu dem boole ko jarbaat yi ay xale yu jigéen lañu kenn ki fukkeet la ka ci des am fukkeet ak ñett moom waa ji auxiliaire de police bi di Malang Sané ne nee nañu wax na ci enquête ba ne jot naa yegg ci jarbaatam bi am fukkeet ak ñett ñaari yoon waaye xamul lan moo ko ko defloo DSL ak seen marque bi di dëkk Dekakila Kenkeyri AAD ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi